asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan juróom-ñaar bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na dibéer ju nekk nag dees cee tere tere waccandiku ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma jàmmi àddina ak alaaxira allahuma inni asaluka almuaafata fi dunia wal axira xadiisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul menn mbir mu ñu teg ci balance mu gën a diis jikko ju rafet boroom jikko ju rafet dana jot darajay boroomu koor ak julli xadiis bi at tirmidi moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa maa min cheyin yuudau fi lmisaani asqalu min xusni alxuluq wa inna saaxiba xusni alxuluqi la yablugu bihi darajata saaxibi sawmi wassolaa rawahu tirmidi waxtu julli suba waxtoom dana tàbbi juróom waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñeent tisbaar benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak benn tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak benn timis juróom-ñaari waxtu wu tegal ñeent fukki simili gee juróom-ñetti waxtu wu tegal juróom fukki simili ak benn loolu mooy waxtu julli ci Tuubaa ak li ko wër